مثل هذا salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bu ñu sante yàlla julli yonent bi sallallahu taala sallam di sant Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ñaan lu baax Serigne Touba Cheikh Mahamadou Mountakha suñu borom may ko fan gudd loolu waa ànd ko wér waaye di ko ñaanal maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Cheikh Fall jëmb suñu borom may ko fan gudd loolu waa mi ko wér ni lañ koy ñaanalee Serigne Touba Serigne Saliou suñu borom yokk leeram taas ci barkeem ni lañ ñaanalee suñu sang bi ci ginnaaw muy Serigne Fallilou Fall moom Serigne Modou Aminta tey mbokk yi nga xamee ne yéen a safoo seetaan seen site internet bi Rafah TV ci diwaan Cheikh Ibrahima Fall Lambaye Mouridina ñu ñëwoon fii ci maanaam janatul mahwa ci ëttub kër maam Cheikh Ibrahima Fall képp ku ko xam xam ko ci keppaaru maam Cheikh Ibrahima Fall waaye ku ko xam xam ko ci keppaaru Cheikh Modou Falilou Fall ñu ngi koy ñaanal suñu borom yokk leen taasu barkeem Baye Ibrahima Dia ginnaaw bu la nuyoo ziar la bi di la ñaanal nga xamee ne doon na fa bàyyi ko ngir njariñ lan mooy njariñal bis bi ginnaaw bu la nuyoo ziar la ak sosotal bis bi fu mu bàyyi ko eh, alhamdulillahi laa hawla wa laa quwwata illaa billaahi al-aliyyil aziim ñoo ngi nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki murit yi rawatina nag waa Rafah TV gi nga xam yàlla dogal rek ay murit la yu dajaloo fas yéene liggéey Serigne waa waaye ñu fekk ñu ci daara joo xam ne jii nag sant nañ ci yàlla bu baax a baax ndax fii nu teg tey de daara la joo xam ne Cheikh Abdoulaye Mbacké ci boppam moom Serigne Touba moo xalaatoon sun maam Cheikh Ibrahima Fall nekk gam nekkoon ak Xaadimal Mustafa ak lam ko doon liggéeyal bi yàlla dogalee nag suñ maam borom Touba yi wàcc nit bi fii fi Touba eh, am fi nag kër ñu naan kër Serigne Touba loolu de Cheikh Abdoulaye Mbacké daal toog ba mu jàgg mi ne ah Cheikh bi war naa am kër kon Touba natt fi nag ab natt bu xaw a yaatu ndax natt bu njëkk ba rek ah joxoon nañu ci ñetti junniy kër ak ñetti téeméer ak fanweer ak ñett woo Cheikh Modou Fall Fall ba mu ñëw mu ne ko damaa bëgg Cheikh Rafal am kër fii fi Touba kon kër gii nag moom lañ tuddee kër gii moom lañ tuddee Jannatul Mahwa loolu nag moo Modou Fall Fall suñu jàmbaar ju baax ja daal ci taxaw daal ci woo nag kër maam Cheikh Ibra Fall yëpp yàlla dogal ne leen damaa bëgg kër gi moom balaa kenn def dara wala kenn am kër Cheikh Ibra Fall na am kër ba noppi ñu tabax kër gi ba kër gi lépp noppi kon kër gi mooy kër Cheikh Ibra ñu te tuddee ko nag ma mawaa waaye nag dem ci amuk cant lool nag ndax wax dëgg yàlla murid yëpp a ngi fi bokk daje nag eh, bis bii nga xam ne yàlla dogal nag ñu ko fi dajee leen lu nekk day am sabab boo xam ne fan lay ndax murid yi ñoom saa su nekk ñu ngi gëstu lépp loo xam ne dana mën a jëriñ bi ak jaar-jaari sëriñ bi saa su ci loo rek la nekk loolu nag murid nag yaatu lool waaye dafa am koo xam ku ñuy wax Adama Niang wakaana aqan kenn ku ne xam na ko ba ah ñu bari boo xam nañ ko ci murid yi waaye lëkkaloo woon nag ay taalibe yu bari kenn koy laaju nag de laajtu de laaju maam Cheikh na ma faal mu nekk ak sëriñ bi maam Cheikh Rama Fall bi mu nekkee Mbacke Kajoor maam Cheikh Rama Fall bi mu nekkee Darou bi mu nekkee Mbacke lenn lu nekk murid yi lañ koy laaj ngir yàlla dogal eh, bëgg a xam doxinu maam Cheikh Ibrahima Fall waaye yàlla dogal nag eh, ñuy gëstu ba am ñoo xam ni kat deme ne aadama moomu am ñu ko wax ne ko sun maam Cheikh Ibrahima Fall day Daaru Salaam la ko sëñ bi ñaanalee gërëm ko sant ko waaye dafa yemoo woon nag fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmm fekk na loolu am na murid yu bari yoo xam ne Tiwaawan sax lañ defoon ab daayira te kër xaw Awa Balla quartier Cheikh xaw Balla ba di fa dayee ngoon gu nekk di fa dayee di tànga seen kafe di waxtaan ci sëriñ bi Adama Niang moomu nag moo jël kaddu gi bind ko ci bind ko ci lettre andi ko fa Cheikh Bassirou Fall alxuraan ndax wala fi dañuy wax ne boo dugg ci néeg da nga jaar ci buntu ma fekk na yooyu jamono sëñ Modou Fall Fall mooy xalifa général de Baye Fall waaye bañ jógee nag sama borom moo leen dimbali ñu jaar ci Cheikh Bassirou Fall alxuraan yàlla dogal man ba ñëwee it ma fekk ko sëñ ba noppi daal leen yéen de da ngeen a baax rek waaye man du ma xalifa général damaa am kilifa sëñ Modou Aminta mooy sama kilifa te ma nga Mbàkke ba moo fi nekk xalifa yàlla dogal biñ ko waxee loolu sëñ Bas daal ne kon gannaaw noonu la demee nan dem léegi lettre bii ngeen ma jox nan ànd. ba fi sëñ moo deminte bu sëñ moo deminte kee ma jébal ko ko ma moom nag ñëw fi sëñ moo deminte sëñ moo deminte jàng ko moom it bégte nag lool ne ah lii de wax di yàlla lu la de lu rafet la de lu war mën am la waaye Basiiru bis boo béggee na ko téye sëñ bi sëñ Basiiru waaw moo sëñ moo ma faw Basiiru fa alquran téyeel ma bis boobu bi yàlla dogalee Cheikh Basiiru Fall jàppaloo itam ne leen kon léegi danaa ñëw kon ca bis ba waaye xam nga lu baax lu mu tuut tuut tuut nga dem mujj rëy lool ba yaatu lool bañ fa njëkkee dem booba man maa yor oto ab 504 essence berline la it nag waaye sëñ Bas ñaari nit la àndal ak moom mu ñett man maay dawal. waaw ah, waaw ban demee ba nga xam dogal na ñoo ngi bëgg a yegg ci biir dëkk ba am na ku ñax wax làmp nduur doon ci jàmbaar lool ci liggéey ba ñu jiitaloon ko ci yëf yi nag sëñ Bas ne ma taxawal ma taxaw mu summi garaam bi mu soloon ak forog ba ne ma lemal ma ko ma lem ko. mu laajal wëlisam soraal yeneen yéere ñu lemal ko mu soraal yeneen yére yére yooyu ba mu demee lamp nduur moom la ko jox loolu nag wax dëgg yàlla kiimaan am ci lool ndax day def at bu nekk day gën a yokk ndax bu njëkk benn oto lay yóbbuwoon benn oto yeggoon nañ ci nag lu mu néew néew néew ñett téeméer oto dañuy jóge fi dem Tiwaawan kon Baye Ibrahima Dia ndorteel bis yow bokk nga ci ñi nga xamee ne booba benn oto nga yoroon te sëriñ bi ci oto bi la duggoon moom sëriñ Bassirou Fall alxuraan ci sa oto la duggoon yàlla dogaloo ne yoroon na ay yére yoo xam ne waajee woon na ko waaye summi na ko jox ko kenn ci taalibe yi koo xam ne jàmbaar la woon te ba tey ji nii bis bi lu tolloog liñ naan ñett ñett junni oto sax dañ fiy teew saa su nekk nga xam ne bis bi euh, lan moo sababoon mu nekkoon tiwaawoon an lan moo ko jëlee tiwaawoon andiwaat ko fii nii. Euh, loolu yi mën na la seen Bassirou Fall noo ko àndoon maa ngi moom bi yàlla dogalee nga xam dem na noo dem ba màggal gi daanaka oto yi daanaka liy jóge Touba dem Tivaouane bari na lool. yoon wu ci nekk it nga xam ne boo mënta ñaat ki at ñaar yoon yoo xam ne dem na ko yoon wu ci man maa jiitu man Bassirou Fall topp ba ma tax a wàcc ñëw bi otoom. ma jiitu mu topp ci ba ma teg sama loxo ci foto bi na ko bisimilah mu toog loolu moom ñaar fukki at yi moom manqué benn yoon waaw bi yàlla nag mbooloo mi dema dema dem bàq si foofu murit yu bari nag bëgg nag wax dëgg yàlla màggal gi ñëw Cheikh Bassirou ne ah man day man waa Tiwaawan murit ya fa ne quartier Cheikh Awa ak murit yi ñi ngi xëccoo màggal gi ak ni mu demee ak togg yi muy togg nga xam ne bala fi jógee mboolem daara kaamil yi fi nekk wala daara jàngaat yi fi nekk wala jumaa wala fu sëñ bi joxe ndigal te lislaam ne mboola ne ndabal ba si fa alxuraan fa tege ñu soog a xëy dem ci awan mu ne nag lii kat dem na ba si fii te Alaaji Baara ngi ni soog a toog màggal gi nan dem yëgal ko ko man de bon sañoon mu ñëw Touba waaye damaa xamul nan laa koy waxee ma ne ko boo bëggee dem wax ma ko su dee maa wax ak El Baara ma ne ma kon bu subaa ca ngoon nan dem ma ñëw ci rajo Lam am na benn journaliste bu fa nekk ku ñuy wax Basi Amar Basiru Amar ma ne ko da jël sa rajo bu mën a enregistré nga jiitu ma kër El Hadj Baara. si ma ñëwee fekk la fa bi yàlla dogalee mu ñëw ñu dee nag alaaji baaru sëñ basa nii laa toogoon alaaji baa toogee fekk nee naa sëñ bas ne boo nuyoo rek ne ko ne rek bu mu ne ma ne ko ah moom ne Mbacke dama siyaas waaye Ibra Jami ma ne ko ah Mbacke ñun de sant sant bu rëy doo xam ne gi yow rek lañ ko bëggoon a dégtal ndax mbégte ma nga xam bëggaloon na ko sunu maam Cheikh Ibrahima Fall mbég mooma daa duggaat ci biir sët yi ak Cheikh Mati Fall Alxuraan mi loolu nag muy màggal goo xam ne dañ ko koy defal ca Tiwaawan ba waa Tiwaawan gépp bëgg na ca nga xam ne guddi googu moom ñett téeméer oto lañ fi jógee dem Tiwaawan nu bëggoon nag Mbàkke yow gannaaw yaay si sëñ Tuubaa te lépp looñu def yow lañ defal te yaa ngi fii fi Tuubaa bu la soobee ñu daal ko indi fii maa ko wax indi indi as rajo as rajo moom xam xam na ko as rajo moom uh-huh. ma ne ba kaay xaalim kaay nii màggal gi nii la eh, yàlla bu baax nag ndax sëriñ bi day lam doon wax wax yàlla feeñ uh-huh. soo ko defalee loo mën mu defalee loo mënut boo ko defalee loo mënut mu defal loo jomb loolu feeñee ci euh, kon Baye Ibrahima Dia mbokk yi nga xam ne yéen a safoo seetaan seen site internet bi Rafah TV ñu amoon euh, kontaan ak mbégte ñëwoon fii ci jannatul mahwa ci pencu maam Cheikh Ibrahima Fall Lambabu Mouridina gànnaaw suñu waajur wii di suñu sëriñ di suñu xarit waaye nag nekk kenn ci kër Cheikh Modou Falilou Fall Baye Ibrahima Dia ginnaaw bu yàlla dogalee ndigal loolu. sëriñ alhaaji Baara Mbacke moom sëriñ lu nekkoon fa xalifa général kullu murid jox ko sëriñ Bassirou Fall moom sëriñ Bassirou Fall alxuraan ngir bis bi ñu andi ko Touba gii lan mooy sababu bis bi dëgg-dëgg sababu bis bi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo nekk biir réew mi ak bitim réew mi tey dégg euh, maanaam màggalug jannatu mahwa gi ci Baye yi lan mooy sababu bis bi dëgg-dëgg ci Cheikh Ibra waaw jërëjëf euh, euh, ñoo ngi yàlla baax a baax xam nga bisu mbégte moom kenn ku ne xam na ko moom bisu mbégte ndax lépp looy def di ko wut lu metti metti metti metti metti feeg amagoo ko rek bégoo suñu maam Cheikh Ibrahima Fall ba mu jógee topp Xaadim Moustapha ngërëmal yàlla rek la nu wut boobu yàlla dogal nag Xaadim Moustapha dem na ba xolam cedd ci Cheikh Ibrahima Fall mii ak jëfam mu woo ko fukk fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmm wii nu ne ne ko Ibrahima Fall sant naa la gërëm naa la yewi naa la kon loolu mooy bis mooy bis bi. mooy bis bi ah bis bi mbégte la moom lépp rafet na ci lépp dagal na ci. ma ma maanaam damaa bañ a la débrajé sax waaw fecc sax bu dagaloon jaar nañ fecc ñun ndax leen doon wut tey tey jëlee ko am ngërëm ngërëm lañ doon wut Cheikh Rafal tey jëlee jotoon ngërëm li bis boobu yi nag li Cheikh Bachir Fall alxuraan di màggal Bachirou Fall moom sëñ Mbacke Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall mooy màggal bis bii léegi nag taalibe yëpp dañ ci far wàll si ndax day bis boo xam ne day bisum ngërëm ah yaakaar naa day yàlla na sàmm yàlla may ngërëmal yàlla dañ la doon wut tey la ko Cheikh Fall amoon nag kon ngërëm loolu nag ci leen di barkeelu rek kon diggante boobu loolu. kon Baye Ibrahima Diaye bu ñu la delloo cant ak ngërëm ak ziar baax a a baax baax euh, duñ la bàyyi nga dem te dimbala nooñu dimbala wooñu ci suñu jàmbaar ja muy Cheikh Modou Falilou Fall nga xam ne kenn la ci yow euh, dañuy wax na sax euh, mat nga ci moom seede waaye mutoo ci moom seede ndax da nga bëgg mu bëgg la mu am fu mu la tegoon bi yàlla dogalee yoon wi dox ba agsi ci moom ak fi mu ko indiwaat ak ni mu ko doxalee ba tey jii nii ku gis njabootu Cheikh Modou Falilou Fall dëgg-dëgg Baye Fall soo koy xool dëgg dëgg dëgg dëgg soo xoolee si njabootu Cheikh Modou Falilou Fall da nga xam ne dëgg-dëgg Baye Fall ak nii ban méthode la Cheikh Modou Falilou Fall doon doxee ba yoon wi fii mu agsi nii ginnaaw ngërëm li nga xamee ne ay kilifaam gërëm nañ ko ban méthode la doxee ba yoon wi ni mu mel mu mel ko ci wàllu xalifaam eh, alhamdulilah rabbil alamin eh, sëñ Modou Falilou Fall day wax dëgg yàlla eh, kaddu yi nga wax matuma ci seere ci moom ndax dama ko bëgg waaye daa moom moo ma bëggal boppam faf ndax euh, xam naa lu na xale wax leen ni mboolem mi di ko dégg waaye xalifa général de Baye Fall bu woo ab taalibe ba mu ñëw mu waajal ko ne ko dama lay yónni Makka nga dem ca ñëw fekkaat ma fii te di Baye Fall te koor ne fi julli ne fi yëpp ne fu noonu yëpp ne fi mu yónni ma ma dem Makka del siwaat yaakaar naa yomb ci wax dëgg yàlla xanaa loolu yàlla xanaa loolu yombut man mii ci man waaw waaw man mii man ba ma àggsee it moom ma a wax alaaji kon wax dëgg yàlla war a kon kon bu ma ne laa mënutuma seereem te daanaka dama xanaa mënutuma seereem waaye jëf ji muy jëf nag jëf jooju laa bëgg a mur yi te wajur bu baax wala yi fekk naa ko jamono lu yàgg muy sëñ Moussa waaye nii may àndanteeg se Modou Minta nag booba jamono tuut naa ci àndanteeg ci noonu ci noonu waaye dégg-dégg nag. moo yaatu lool ba mën ak ci nopp dafa am jamono boo xam ne day laaj xarit tabaski mu sëñ Modou Moussa Touba Fall gii ne ak gébb ak nja ak njéeréem laaj na fi laaj laaj laaj juróom benn fukki xarit yi mu soxla woon am mënta am mu ne kon léegi naa dem Thiès bu yàlla koy mu jóge fi dem Thiès woo taalibe ya fa nekk yëpp ne leen ndax yéen da ngeen a bëgg a tabaski man Modou Moussa Fall man ma jéeg bañ a tabaski ah loolu kay lool du kay Fall du am loolu kay Fall du am kenn ku ne daw dugg këram génneem xar indi ñu daj la i yi ñu ne xar yi mat nañu mooy leen mat nañu mat na mooy leen waxtaan nag baat yu gàtt laay wax de mm. ñu ne ko kay Fall waaw kay Fall mu ne yaar rek ka fi nekk. cang gi ak njaam gi cang gi sëñ waa jël na ko ak waa këram yii njaam gee fi des muy taalibe gi ku ci amul dara ñàkk nga waaw sëñ Mourou Moussa wax loolu de cang fi cang fi nekk ku njaam cang gi sëñ waa jël na ko waa këram ba ba Bass Abdou Khadre ba ak soon fii léegi ñun ñëpp daw de léegi daw léegi ba sëñ Fallu mi day daw kon cang gàngoog njaam jee fi des nag njaam gi mooy moom mii ku ku mënta ne ci léegi ñàkk nga doo doo doo dara loo bari le bari le bari le bari le gis taay taay bu ko ëppalee kon cang kon kon njaam jee fi des am déet dama ne loo bari le bari le bu dee oto bu dee kër bu dee soxna bu dee xaalis gis taay taay bu la ko ëppalee fop kon li am dara mooy taalibe gi te ñee ko yor foofu fii nag fi mu demee te dugg waaw ah. loolu nag mënees fu ko amee fenn lu ma ci téere boobu ñax naaju waaw waaw ndax jàng moom baax na lool jàng baax na lool de waaye am na loo xam ne boo ko bëggee da ngay dem liggéeyi ah am de am déet diggante ko diggante ko foofu la nekk waaw xëy na jàll ba Ibrahima Dia ñu gis ne Cheikh Modou Fallou suñ ndigal masa jógee kër Serigne Touba dañ la daan gis nga ne ci kanam ci waar wa te yàlla def nga doon ay mag nga doon mag am ñoo xam ne yàlla mag ci waar wi maanaam gan bëgg ak gan kàttan ak ci ban dimension nga mën a toll ba jiite waar wi noonu di soññee ba fu liggéey ba toll yow da nga fay dem yuuxu ba taalibe yi ñëw fa loolu daal bëggoon nañu xam ban secret la ba Ibrahima Dia doon jëfandikoo la wala lan ndimbala sëriñ bi la waa wala déet. waaw kooku xam nga moom ni muy yare daa bokkul ak nit ñi ñuy yare ndax ñaari baat ci laa tënk ci ku xam nooy def noppaliku. ku def noppaliku. booba dafa am fu mu jëm ci àll. man booba entrepreneur laa. mu woo ma laaj ma oto ma jël oto bi jox ko ko man ñëpp yéeg. ma taxaw di ma taxaw tàllal samay loxo di ñaan la mu ne ma looy taxaw. parce que def naa samay loxo ba noppi. ma ne ko ah man ma xamoon nu may def. mu ku xam nooy def noppaliku. ma del taxawaat mooy waaye demal yéeg. ma dem yéeg. ci denn ak apprenti bi. mu ne apprenti bi wol ma ko ma dil si waat fi ma doon ñaan loo ma ne ma xoolal ñaway dawal ñëway yéeg yoon woowu am naa juróom-ñetti fan àll yoo xam ne maa ngi bàyyi waa ji taatu garab taatu garab kii la ñu fanaan maa ngi maa waaw maa ngi bàyyi maa ngi bàyyi mii bàyyi ci taatu garab kii la ñu fanaan juróom-ñetti fan te boobu entrepreneur la boo xam maa ngi doon liggéey kon loolu ab soññee la ci nit ku xam nooy def mm-hmm. noppalu dégg nga wax ji baax na fii ci ruq bii ci biir fii dañuy woote jànnatul mahwa hmm. takkusaani suuf mu ñëw fa ànd ak sëñ Fallou mi Moussa hmm. Ibrahima ma ne ko Fall ma ah, maa ngi dem xool liggéey bi xëy ba xam ne muy demee ma ne ko waa ah, baax na Fall mu ñëw wàcce luy bagaasam hmm. sëñ Fallou lu yónnee bagaasam Moussa yónnee luy bagaasam ma toog toog toog toog ci guddi gi gisuma kenn fajar cinq la man taal tàmm naa xëy cinq heures ma xëy si a ah, ma di ko def ma am la man ñetti fan mhm. wàcc jotee rek ma ñëw ne ko ma dem ma dem dallu ma ne waa demal dallu mhm. ma dem mbàkk dem mbàkk kër mhm. bi ko ñeenteel mu wax fallu kebe ba nga nee toog ne ko wol ma Ibrahima mu ne ko ah Ibrahima mbàkke la fanaan mu ne ko mbàkke mu ah, ne ko ah baax na cinq rek mu kar mu fii ci koñ bee ci koñ bee seen nga miir bi koñ bee fa la kar cinq rek mu seen nii daal ah lay ñëw de oto la mu ne ko ah, de heure boobu lay ñëw Ah, ah ah mu ne ah, baax na ba ma tegee faal seen ko seen mbooloo mi ma ne kee di ma fay ma fay faal yi ma yoroon fay wees yi daal di wëri nag ca gannaaw da ñëw gaare takk sama der waa ñëw jekk toog waxuma la ba ma wàccaat toogaat ba 10 jot ci guddi ma ñëw dana moom ne xanaa ko ma ne ma xoolal man mënoo maa nax Mbàkke gi nga jëm loo fa am am naa ko fa liggéey bi Cheikh Raval bii nag eh. lim ma jaral eh. bu la ko jaralul eh. foo xam jëm fa. jërëjëf macha allah Baye Ibrahima Dia kontaan nañ loo sant nañ gërëm nañ baax a baax baax yéen mbokk yi doon seetaan seen site internet bii di Rafah TV tey ñu ñëwoon fii nga xamee ne mooy Janatul Mahwa di pencu Mame Cheikh Ibrahima Fall fekk fi suñ jàmbaar ji nga xam ne mooy Cheikh Modou Falilou Fall doon dalal suñu waajur wi Baye Ibrahima Dia moom Cheikh Modou Falilou Fall moom waaye nag ci caméra bi nga xamee ne Serigne Modou Fall mi nga xamee ne moom Ba Dam Fall Saxir ñu ngi koy ñaanal suñu borom may ko fanu gudd loolu waandu ko wér di ñaan suñu borom sàmmal ñu ko sàmm njaboot gi kon mbokk yi nga xamee ne seetaan seen site internet bi Rafah TV diwaanu Cheikh Ibra tey ñu amoon janatul mahwa ci pencu maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaanal mbokk julli ak mbokk taali yàlla nañ ko teewee at yu bëree bëri ci barke alxuraan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë jëf